dal leen ak jàmm mbokki internet yi yéen ñi nga xam ne rek yéen a ngi ñuy teewlu saa su nekk te di ñu bàyyi xel dañuy daal di dikkaat rek ab tënk ca la gën a fees mën nañ ne niki tey nag gannaaw kàddu yi ki nga xam ne rek moom moo di président Sall jur li nga xam ne rek moom moo di ak jàng ci biir réew mi ba ñu baree bari rek daal di jot nag ñàkk d'accord ñàkk ànd ak kii di président ca kàddu yee tax nag ñu gis rek ñu bari ñoo xam ne def nañ ay révélation dinañ daal di dikkaat ci ay kàddoom gannaaw libération ki nga xam ne rek moom moo di Bassirou Diomaye Faye ak kii di président Ousmane Sonko lan lañ ca war a daal di jot a confirmer ci euh, kaddu yi ki nga xam ne rek moom moo di ay Tall Sall mi ko yëkkati woon ba tax jamono bi ñu toll nii arrestation kii di Ngagne Demba ture jur nag coow ci justice su Sénégal bépp rek rawatina ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di lee greffier mën nañ ne mbir yi mel ñu fas yéene sa dikk ab a gannaaw nag ba ñu daal dee nemmeeku rek moom mii nga xam ne moo di Thierno Alassane Sall yëkkati ay kàddoom ne président lu dul yabaate defu ko ndaxte kat bu fekkente ne rek wala boog comme nam ko waxee rek bu fekkente ne dañoo daal di nemmeeku kene kat kii nga xam ne rek moom moo di président ndaxte kat moom mii di président de la république rek gannaaw ba ñu ko daal dee wóolu rek ba jox ko suñu réew mii di Sénégal nekkat niki démb benn poñ boo xam kat jërul woon sax mu koy wax mooy lu dellu ci wàllu mandaam bi nga xam ne rek la 2 avril dina daal di quitté ci bopp réew mi di Sénégal te loolee mën nañu nekkul sax loo xam ne rek lu ñu koy ñaan njekk la moom mii di Thierno Alassane Sall nag daal di ne kon nag jërul woon muy woote rek li nga xam ne moom moo di jaloo ko ndaxte la ñuy sàkku te bëgg ko ci dialogue ba du lenn lenn lenn lu dul benn poñ bu nga xam ne rek mën nañ ne opposition bi ñoom loolee la ñu daal di bëgg tamuy mu fixé leen benn date boo xam ne mën nañ ci lu ëppul dix minutes mën nañoo daal di juboo d'accord ci benn mbir bu fekkente ne nag respecté na ñii di sénégalais yi jërul woon nag ñaari fan yi lëmm muy lundi ak mardi mu jël ko nag pour jaloge ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di candidat yi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di acteurs yi ci mbir minimel nag moom mii di Thierno Alassane Sall daal di gis kenn kon nag ñàkk respect gi nga xam ne rek ñi ngi ko doon ruumandaat ci kii di président dafa mel ne ma ngi koy wane ba tey ndaxte ba mu jógee sax ni ki démb yëkkati ne ay kàddoom nekkat jaxase giñ koy jaxaseeg opinion internationale bi métti na ko lool lan moo tax ñuy yàq deram mën nañ ne nag ñu bari jàpp nekkat loolee bu amee moom moo jëf jëf ji ni mel ndaxte bu fekkente ne woon ne rek respect na jox gëdd ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di askanu sunu gaal mbir mi ni du am wante kat amam dafa tegu ci ne moom moo wane dossier yi nga xam ne rek moom moo tegu ci taabul ji mbokk yi daal di koy liir mu nekk loo xam ne lu fàngaaral dajjaaral ci mbir mi rek la ñuy daal di duggee ci libération ki nga xam ne rek moom moo di uh, Basiru mu daal di soxal rek ki nga xam ne moom moo di uh, Basiru yi Fay moom moomee nag lam sa yëkkati du lenn lu dul rek ne libération mën naa daal di am wante ci kaw ñi nga xam ne rek ñoo yoon daal di def seen liggéey bu fekkente ne nag justice daal na leen di nangul li nga xam ne rek moom moo di ab dogal moom mii di euh, basiiru Diomaye Faye dina daal di mën a dikk nag participer sax ci jaloog bi moom mii di président dàqul li ni mel wante kat ñu baree bari ci seen i jàngat ne kàddu yooye daf ko wax mu yam nag ci aw lamiñ wante du doon loo xam ne rek dañ koy jëfe ndaxte kat koo xam ne rek da nga ne da ngay woote jàmm pour ak dal dellusi ci réew mi def libération ci ay détenus politique ba ñëpp ne gongo ñu wëlbatiku tourné gis la nag ngay def yeneeni pexe yoo xam ne rek moo lay téye ca bopp réew ma wala bokk loo xam ne rek day yëngalaat dënnu sénégalais yi lu ci mel ne rek li ñu jot nemmeeku ni ki démb wala bokk bërki démb te du lenn lu dul arrestation kii nga xam ne rek moom moo di euh, maître Ngagne Demba Touré mën nañ sax kaawam dinañ ci daal di taxaw niki démb moom ak juge bi di Mamadou Seck mën nañ ne xaw tuuti rek ab jàpp jàppante daal di fay am gannaaw nag ba ñu yëkkatee ay kàddu yoo xam ne rek kàddu yu dënd la rawatina nag juge bii di du Seck jëmale ko ci ndoddal ki nga xam ne rek moom moo di ngañ Demba ture tax na nag maître ngañ Demba mersa ba futtu jaamaarloo ak moom mën nañ ne nag yeneen i greffier yi nga xam ne rek ñoom ñoo doxoon ci seen diggante gannaaw gi nag ñoom ña ngi xam ne mbir mi ni mel c'est la première fois ñu remarqué ko wala bokk ñu nemmeeku ko seetlu ko ci réew mi di Sénégal rawatina nag ca audition boo xam ne rek ña ka doon amal te ñu jàppoon ko ni ki bërki démb antuwul ñu daal di koy amal ni ki démb ba placé ko nag sous mandat de dépôt moom mii di maître Ngagne Demba Touré mi nga xam ne rek mën nañ ne daal di nay raafale wala bokk ko daal di jàpp bu fekkente ne woon ak fiir la ñii nga xam ne rek ñoom ñoo di yëngatu ci wàllu justice ndaxte kat ñoom ñëpp jotoon nañoo bàyyi xel këne dinañ daal di teg loxo dinañ daal di téye kii nga xam ne moom moo di euh, ngañ dem ba Touré nekkul loo xam ne lu bett la gannaaw nag libération ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko dina am wala du am kii di président de la république kaddu yam sa jot a yëkkati moom mooy kënekat moo ko kii di nga xam ne rek moom moo di Bassirou ñoo bokkule ay cas bu fekkente ne ci wàllu amnistie nag moom président daal dina say jot a yëkkati ay kàddoom wante kat dafa mel ne lii di jaloog bi daal dina koy ñor lool lool lool sax ba tax mu taxaw si taxawaat si bàyyiloo si xel bu baax a baax ñii nga xam ne rek ñoom ñoo di sénégalais yi nekkat dañoo daal di war a dem dialogue te si jaloog boobee ci lañ war a daal di am lu leer ci loo xam ne rek moom muy ëllëgu réew mi di euh, Sénégal fekk nag jamono boobu ñu bëree bëri ci opposition bi ñu ngi taxaw euh, ku ci mel ne rek kii nga xam ne moom muy Aliou Mamadou Dia bu parti piir yëkkati ay kàddoom gannaaw ba mu loolee naqarloo ko ñaawlu rek ni ki démb ki nga xam ne moom moo di président mi doon xaar pour nag mu daal di ñuy jàppal dat wante kat mën nañ ne amul lenn loo xam ne rek wax naka fa lu sénégalais yi mën a tee lu dul koo xam ne rek da ngay par parloo tax naka mënoon na ko daal di bind ci kayit jébbal ñu ko rekk ku mën a liir liir ku munta liir toog ndaxte ñàkk ko liir du la wàññi dara lañ doon xaar di benn poñ tamuy mu jàppal ñu suñuy élection gis nañ ni amul tax ñu bëree bëri déception la ñu daal di amee total ni ki démb gannaaw nag sorte moom mi di président Sall ni ki tey ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di opposition bi ci àjjuma ji wala amal nag ab rassemblement foofu rek ca place de l'Obélisque li ko waral nag du lenn lu dul bëgg rek immédiatement ca na mu gën a gaawee moom mii di président na daal di taxaw jàkkaarloog askanu Sunugaal wax ak ñoom la nga xam ne rek moom la war a wax ak ñoom te lam war a wax nag mën nañ ñi du lenn lenn lenn lu dul kënekat war naa taxaw jàkkarloo ak sénégalais yi yëkkati ay kàddoom nekkat dañoo daal di bëgg dem ay élection comme ni ko opposition bi sàkkoo ci la 3 mars bi nga xam ne moom la ñu daal di dëgmal ndaxte kat layam layam ji dañ siy bëgg a sonn amatul lenn loo xam ne rek moo war a tee war a tax ñu daal di toog nekkat ay élection du am fii ci biir réew mi fii ak le 2 avril ndaxte loolee la muy jur du jàmm ci biir réew mi te du jàmmi Sénégal te sénégalais yi liñ bëgg jamono bi ñu toll ni mooy jàmm ji nga xam ne moom moo gën jàmmarloo te ku ko yàlla may nga jël kon nag ab doomu aadama waru koo xañ moroomu doomu aadamam la sénégalais yi nemmeeku moom mooy kën kat fitna ak coono la ñuy dund doontele moom mii di président de la république jàpp na ne sénégalais yi ñu ngi seen jàmm ñu ngi si seen salaam di gundaandaat waroog lool li nga xam ne rek moom la opposition bi gis jamono bi ñu toll nii di leen di jaajëfal yéen mbokk yi ci topp gi safoog ak faale gi seen chaîne YouTube Partout